mel na ni leer na kon nag ñu daal di jàll ci beneen point bi nga xamante ni loolu tamit viral na lool ci réseau yi. Hmm. muy mariage royal ci borom euh, kilifa gu mag fii ci réew mi doon xewal doomam. Hmm. xew bi nag duré 4 jours. Hmm. jeudi vendredi samedi ñu dégg ci ay millions yu bari oustaz. ba dégg nañ ci sax appartement buy jar 300 millions. ñu maye ko ci xew boobu waaye muy mel ni ak fii jamono ji tollu ñi ñaa ngi naan xaalis am nag xaalis amul ñu digg ay millions yu bari yooyu ci xew oustaz mm. ndax naka nga gisee eh, loolu ndax am na yéen naan yàq la ñuy naan day teral doomam yaari nay leer ba tey waxoo ku ko def ak nu mu ko defee fu mu ko defee <laughs> ah question bu garaaw nga ko posé yaari nay leer ba tey waxoo ko def oustaz nu mu ko ko defee <clears throat> <laughs> waaw maa woote nay leer de. <laughs> kon nay leer oustaz. waaw dama di Aziz Ndiaye. mu doon xewal doomam bu jigéen bu ñuy wax maman Aziz Ndiaye. Uh-huh. xew bi nag duré 4 jours. Uh-huh. maanaam man maa ko yemal si 4 jours sax ndax barki démb rek gis nañ kii di aawam bi woo ñaareel bi. di ko recevoir këram. Uh-huh. def ko ay teraanga bernde ko. moom ak ay nitam. waaye xew bi daal gis nañ si oustaz. million yu ñu may géwél yi bari na. géwél yi taxaw nañ ne may nañ leen ay millions. kii di Aziz Ndiaye tamit yëkkati na ay millions séddale maye. ginnaaw loolu toog na di waxtaan ak ay kilifa di xamle ni am na benn immeuble am boo xamante ne nii bi mu ko tabaxee. pare na yàggul yëkkati na appartement bu jël million millions may ko doomam bii di mama Ndiaye. léegi nag oustaz ginnaaw loolu moom bi mu ko defee. ci réseau yi. gars yi ñenn ñi ñu ngi koy ŋaañ ñu ngi naan yàq la. ñeneen ñi ne du yàq ndax day teral doomam. léegi nag yow loolu noo ko gisee leer na. dinaa wax nag ñaari aspect ñu ngi koy nuyu moom bu baax Aziz Ndiaye sunu mbokk taalibe cheikh boobu di ko ziar di am mbégte ak contentement ci rawdu bi nga xam ni def na ko ci rawdu Serigne Babacar Sy muy sëriñam ñu bokk pas-pas loolu ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm ndax def na lu rafet a rafet yàlla ko yàlla fay bu weesoo loolu li nga laaj xam nga kilifa dafa am fu muy toll. dafa am fu muy toll yu bari du ko war. dafay am fu muy toll yu bari da koy war. Aziz Ndiaye yëkkati na appartement buy jar trois cent mille. yon may ko doomam. Hmm. ah dëgg dëgg nag mbokk yi loolu dafa rafet. dañ ko war a rafetlu. Omar dafa rafet. dañ koo war a rafetlu kenn waru koo ŋaañu xam nga lu tax. doomam la ko may. Sénégal nag bu mu tas de Omar. am teraanga yëkkati may sa doom. kooku warul jur benn problème. warul jur benn problème warul déranger kenn mu des beneen. Mhm. nga ni xew na yëkkati ay millions. maye ñan la ko may. ay géwélam Sénégal ku ne xam ne daa am culture boppam. Mhm. ku ne am nga droit jël sa alal. maye ko ku mu la neex ak nu la neexee yaa moom sa alal. Mhm. loolu it duma ko ci ŋàññi mu des benn. muy euh, jabaram tamit gis nañ ko ni ki barki démb. jabaram gis nañ ko. mu woo ñaareelam. gis nañ ko ni ko barki démb mu woo ñaareelam. waa teral ko. teral ko. waaw jabaru ay bernde jox moo woo ñaareel bi teral ko. aawa bi. teral ko moo teral ko. loolu tam macha allah doon geste bu rafet a rafet. boo xamante ni soo amee ci aawa yi kër yi day daal di neex. Mhm. waaye. Mhm. dafa am waaye. Mhm. Omar. waaye gi lan la. ok dafa am waaye. Euh, alxuraan dafa wax ni in yakunu fuqara yugnihum allahu min fadlihi su ngeen demee ba ñàkk bu leen tiit bu leen jaaxle yàlla mooy jël teraangaam ak dooleem mooy xéewale mooy jox ku ko neex moom suñu borom waaye dafa am fu Aziz ak ay soxnaam guddi yuñ toll ku leen bëgg doon ay soppeem war waxtaan ak Aziz xam nga mooy lan. Mm-hmm. Aziz na sóor population wu Sénégal bari nay soppe. Mm-hmm. bari nay am di jàmm. bari na ñu ko bëgg rawatina xadara bi mbokk bokk bari na ñu ko bëgg ah, waaye Aziz ku ko bëgg dimbali laa wax de. Mm-hmm. na koy wax na sóor ñi amul. na sóor ñi ñàkk. na soor ñi nga xamante ne mosu ñëw téye cent mille francs seen poos. même buy def nga kenn terewu ko ko. Mhm. yaa ngi may dégg bu baax. dégg waaye bàyyil xel yonent bi alayhi salaatu wa salaam daawul def dara loo xamante ni dañ koy teg ci base puukare. Mhm. yonent bi ku koy rey musul def loo xam ne dafay jëm ci base puukare. Seydi Hadji mu yaakaar ak njabooram mosul def loo xam ne dafa jëm ci base puukare. Mhm. waxuma ni day puukare de. waaye lu ni mel laa wax day blessé ki amul. Omar yaa ngi may dégg. def nga ko daggan na day am loo xam ni soo ko defee day daggan kenn du la ci jam Aziz may na xaalisam rafet na ay jabaram aaw bi gërëm na ñaareel bi may na ko xaalis rafet na yëkkati na appartement may na doomam rafet na mhm. waaye ñu ciy dégg ay millions ay millions mhm. am na koo xam ne ba tey de cent francs yu mu ndekkee tey am ko mhm. suy gis Aziz di def loolu xelam lu cee ne naa seete Aziz mu may na defal ma te yàlla tax fan la koy gisee ban porte lay jaar est-ce ñu ñàkk ci Sénégal gépp Aziz mën naa régler seen problème. kooku Aziz mi ngi koy blessé. te yëgul ni mi ngi koy blessé. ba yaa ngi koy blessé te yëgul ni mi ngi koy blessé jamono ji ñu toll yàllaa ko xewal. ku yàlla tàccu dangay ngay fecc. waaye bu la yàlla xewalee. bàyyil xel ni xew yi daa ne ci kanam. lu déggoo ma de. dégg dama ni bu la yàlla xewalee. bàyyil xel ni soxna Fatou xew yi moo ne ci kanamam. Mhm. bari na milliardaires yu ñu fa doon tudd. bari na millionnaire yu ñu ana Cheikh Amar déggati nga ko. dégg daawoo dégg Cheikh Amar. ko de jaay ni ko dama lay maa la laaj question bi mm-hmm. nga xam ni ku ne wëy na ko. laay tojul ki daan ki nekkoon port. Cheikh Kanté Cheikh Kanté mi daal décanté <laughs> moo décanté. Cheikh Kanté dégg tur yooyu ay Amar ay décanté Cheikh Kanté. Mm-hmm. ñooñu tojuñu Sénégal. dëbb nañ ko kay ba mu mokk. dëbb nañ ko ba mu mokk xoola façon yii nag moo amoon ci ñoom. Mhm. dañ daan joxe jox bi ñu ñi di yéemu. tey jii nii di nga toog semaine lëmm doo dégg journal kenn à la une ku tudd Cheikh Amar te bu njëkk ku ko tuddul bokkoo. Mhm. woykat yi fii musiciens yi fii. kon li ma koy conseiller en tant que mbokkum taalibeem mooy am na ñoo xam ni ay pauvre lañu. Mhm. amuñu ay faqiir lañu. dañoo soxla ku leen dimbali. doon tere mi ngi koy def. dañ koo soxla yu mel nii suñu ko dee dégg da leen di blessé ñoom. day métti ci ñoom dafa am nu mu leen di touché soxna Fatou. Oumar mu mel ni euh, euh, xew Aziz Ndiaye bi moom lëmbale woon na réseau yi bu baax a baax a baax euh, sa xalaat ci lu ni mel. voilà comme ni ko oustaz waxee rek man xew bi moom ci ñaari fànn laa koy analyser muy voilà forme bi ak fond bi. Mhm. soo ñëwee ci fond bi comme forme bi Aziz Ndiaye jël na li nga xam ne mooy xaalis jox ko li nga xam ne mooy doomam ñëpp koy rafetlu ko parce que lu ko war la ku nekk soo amee xew mën nga teral li nga xam ne mooy sa njaboot. Mhm. je pense que ñi koy def bëri nañ mais ci anam bi mu ko defee. Mhm. mooy peut-être que ndistal bi wala boog puukare bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci parce que mënoon na ko def te ñu bëri duñ ko yëg. ñi nga xam ne mooy njaboot gi entourage bi mën nañ xam ne Aziz Ndiaye def na ko mu nekk woy wu nga xam ne du ma sa fay mais soo xoolee réseaux sociaux yi ñi fa nekkoon ci wàllum site internet yi sinabeur yi nga fay gis géwal yu mag yi parce que géwal yooyu seen mbokk sax day xewle duñ dem mais ah. tant que Aziz Ndiaye moo xewle ñu ngi fay yaakaar dara dañuy ñëw donc yooyu yëpp nekk na yu nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel parce que voilà Aziz Ndiaye tamit dafa nekk ku nga xam ne dafa am fu ñu ko xamee bien vrai que nekkoon na ci làmb ji mais ci wàllum diine mm-hmm. da ciy bay waaram bu baax a baax te loolu am na lu nga xam ne àndut ak yeneen défini soo nekkee ci benn benn benn voie benn logique mm-hmm. il faut nga respecter ko d'autant plus que soo xoolee wàllum làmba ji sax li ko ci génnee ñun ñëpp xam nañ ko mm-hmm. parce que sëriñam moo ko digal mm-hmm. je pense que mënoon na def xew bu nga xam ne xew bu jaar yoon la li nga xam ne mooy jabaram kontaan njabootam kontaan te du demee nii mais su fekkee ci wàllu jigéen ñi moom wootante mayante ay xaalis loolu yëfu jigéen la yàgg na fi nga xam ne mooy Sénégal mais je pense que liñ ci war a wax rek mooy Sénégal sénégalais bu ñu xool ci Aziz njaay tamit ba def lu luñ mënul parce que ñu ci bëri dañuy gis ne Aziz Ndiaye maye na trois cent millions def na lii def na lii nga ne dama koy def ah. ci naka mooy yow da nga am xew da ngay génn dem lebi ah. da nga am xew da ngay dem nga tayle li nga xam ne mooy say takkaay leneen ak mhm. leneen mhm. ba su xew lu weesee da ngay nekk ci ay problème loolu tamit sénégalais yi war nañ ci bàyyi xel ñu xam ne ki ko def peut-être daf ko man am na lu mu ko defee mais ñun ñi nga xam ne yoruguñ wala boog suñu borom dénkuñu alal. ñu def ngalawaay lu ñu tolloon Omar. daaw mhm, fi dégg eh, eh, eh, Omar ma laaj la benn question. Aziz Ndiaye ak Sadio Mané kooku xaalis. ah Sadio yow football waaw a ma gën a maîtriser damay laaj. jàpp naa ne transfert u Sadio Mané Al Nasser gi mu dem rek. contrat boobu rek. waaw romb na ki nga xam ne mooy. Aziz Ndiaye d'accord léegi. Hmm. dama jox exemple rek Sénégalais yi dañoo waar nag. Ah. te <laughs> gis nañ xewu Sadio Mané. waaw dama gis gis nañ xewu Sadio Mané. merci merci beaucoup. lii rek laa bëggoon a laaj. waaw Sadio Mané d'accord nañu kon milliardaire la. Mm-hmm. Ah, multimilliardaire. waaw léegi kooku nekk moo mën a xewle. Mm-hmm. ñuy tooñ xaw ma am naa amul ñu naan lim joxe lépp jabar di matul sept cent mille. Mm-hmm. ma kontaan ci émission bi laa ci rajo bi ma kontaan ci xam nga lu ma jublu loolu. Aziz wax naa ni mbokku taalibe la jëmm ju baax la Mm. il faut ñu comprendre loolu. comprendre nañ tamit logique am. Mm. topp na lu neex sox soxnaam noonu la. Mm-hmm. lu neex ja doomam ànd nañ ci. mais dama ni moom na xool ñi amul. Mm. waaw sax na mu leen di gaañee. ku mel ni Sadio mm-hmm. xew ma jeex. kenn déggaatul xew ma ñu coow ko. te ah. loolu dëgg la waaye il faut tamit ñu taxaw seetlu. ndax Aziz Ndiaye. Mm-hmm. taawam loon xewal. ginnaaw loolu xewal na fi ñaareelam. Mhm. xewul de takk na fi ñaareelam te xewul xew xewul xew bu rëy. Mhm. donc euh, euh, ah, mu ah, jël. Ah, xew boobu defoon mais defee wuñ ko Sénégal en fait wuñ ko Sénégal xëy na gis ay images. sax gis nañ li fi xew ci xew boobu mais après après la jabar